mais bu Touba ngir xeex Covid 19 génne juróomi junni masque jox ko ñi nga xam ne ñoo tënku ci association Bawol Mbooloo ànd xeex mbas mi nu jébbal ko askan wi nekk ci marché Ocass ak Touba 28 soxna Ndak rafet lu loolu li nga xam ne Abdou Lahad def na ko. dañoo gis ne dañoo war jàppale askan wi naka lañ leen di jàppale ginnaaw nag ba ñu bokkee ci 30 de masques pour 15 de sénégalais dañoo ñëw Touba pour defar ay masques jox ko askan wi.

ànd bi nga xamante ni ànd nañ ko ak nos autorités ku ci mel ni surtout nak te on précise ndax daf ñoo jàppale Touba mii le député son honorable Abdou Lahad Seck Sadaga te noonu it maire Touba bi di Abdou Lahad Ka ak tous les conseils euh, comme rek euh, maire bi fi jógee léegi tonton Morlo ak képp koo xamante ni yaa ngi commune de Touba ñun nak lenn la ñuy dolli ci wax ji maanaam le travail continue tey la ñu gën a laxasaayu pour defari ay masque jébbal ko askan wi. dañoo nekk ci dëkk boo comment tenir. Euh, un peu diversifié ci xalaat yi waaye dafa am rek lu leen di wax suñu xalif général kulli murid Serigne Mountakha dafa génn joxe ay kàddu yëkkati tamit ci alalam jàpp pour ñu xeex euh, pour ñu xeex mbas mi jël antigel def ko ci loxoom kan këpp koo xamante ni murid nga te muridullahi ngay wuyoo kon amaan na war nga gëm li nga xamante ni moo di feebar bi te xeex ko ci noonu tamit ñuy lancé benn appel képp koo xamante ni rek murid nga naa Cheikhul Khadim ñor la ñu ngi lay naan nga moytandiku ndax Touba kat cible la jamono jën tollu cas yi ñu ngi fi bëri rawatina les cas communautaires nan si jàpp ndax suñu xeexa ndax dañoo débuté par sensibilisation porte à porte dem nañ lu si mel ni Daaru Marnaan Jannatu Daaru Xuddoos Médiyana ci noonu tamit ñu ngi continuer di woyee liggéey bi dañuy boole li nga xamante ni moo di defee ay masque pareegul ñu ngi ci masque yi mais en même temps dañuy wàcc ci terrain bi eh, dem ci ni askan wi waxtaan ak ñoom jël leen yaakaar ñu moytu ndax Covid 19 existe bel et bien ici à Touba. Alaaji Ndiaye programme teewal maire Abdou Lahad Ka di wax ne lii daal ab tàmbali la waaye maire bi moom taxaw na temm ci ànd ak askan wi xeex ba mbas mi abal leen. yi nga xam ne médecins yi wax nañ ko ak ñi nga xam ne ñooy saytu mbir mi ne ku koy jëfandikoo yàlla mën na laa dimbale ba feebar bi mën a bañ a tee law ñu gis ne nag kon ay masques yi nga xam ne wax nañ ne kenn ku ne war naa am masque ñu daal dem commandé waat ay masques war a mat 1000 masques génn ci tey lu mat 5000 masques. indi ko ngir saare ko ci marché Ocass bi nga xam ne ñëpp bule nañ ne wane ne fan yëpp ñu ngi ko tëj wane ne fi la feebar bi li ci ëpp fa lay génne ñu demoon na kar ko foofu joxe fa yooyu joxe fa liñ fa lépp loo xam ne ni war na man rek ay matuwaay ba ñu fa jógee ñu jàll siwaat ba fii ci jumaa ji Sëriñ Tuubaa ji comme tey la ajjuma am na benn benn yu war a julli si ñu ne nañ dajeek ñoom ak ñi nga xam ne ñoo fi jaar ñoom itam jox leen muy acte boo xam ne commune Touba defati ko ngir fas yéene gën a taxaw ci liggéey bu rafet bii loolu nag ñu ci sant ñi nga xam ne ñoom lañ àndal rawatina maire bi Abdou Lahad ak conseiller mi rawatina euh, monsieur le député Abdou Lahad Seck ak euh, Serigne Sidi Mbacké ak sëñ Mor Lo ñi nga xam ne ñooy équipe bi ak sëñ Moussa Thioune mi nga xam ne euh, taxaw na ci taxawaay bu rafet waaye nag ñu sant itam ci biir bi muy ki ñuy wax Bawal Euh, Mbolo, Bawol Mbolo, nag association la boo xam ni dafa composé ay étudiantes ak ay étudiants ak élèves Yo, xam ni dañoo nekk ci dëkk bi amoon seen initiative bu bopp ngir ne dañoo bëgg a xeex mbir mi comme ñu ngi en vacances daal di wut seen masque di cotiser ak ñaan ku leen mën a dimbale di ko jox askan wi bi ñu gisee loolu ñu ñëw contact ñu contacté mairie bi mairie bi daal di lu toll nii ci ay masque daal di ko tegaat seen loxo ngir ñu ànd distribuer ko jox ko askan wi tàmbali la boo xam ne def nañ ko tey rek waaye incha allah fas yéene nañoo continuer defaat yeneen action ci yeneen marché fas yéene nañ daal li nga xam ne mooy lutter contre euh, fièvre bi ñun daal taxaw nañ ci mairie Touba taxaw na ci li ci war a def lépp dund bi jox na ko nit ñi ba jeex na tak tàkk wëlbatikuwaat na duggaat na ci askan wi wuti masque di leen jox loolu lan la daf ma motivé waat ngir ma commandé waat leneen yokkat ngir loolu lu bëri la incha allah loolu moom dafa wane ne dañoo war a yokkaat commande yi te incha allah danañ yokkaat commande yi jox ko askan wi ndax ñun askan wi rek lañ fi nekkal ci seen bëgg-bëgg la bëgg nañ ko kenn ku ne xam nañ ne bëgg nañ ko waaye mënuñoo am ñi nit ñaa ngi koy am di ko jaay ki nga xam ne mënta jënd na nga ñëw di ko may kooku loo ko may doy kon incha allah fas yéene ñoo dolliwaat dolliwaat ba mat ñëpp la bu ñu sañoon Touba ku fi dëkk ku ne am nga masque dañu dañuy wax ne Touba masque Touba masque kenn ku si rek am masque ba nga xam ne feebar bi dañ wa ne leen war naa mën a jóg Touba te lutte bii ci mairie Touba def nag taxawe ko ci bu ko taxawee yaakaar naa ni lépp dana fi jeex